li fi xew dafa bare ci ay problème dafa bare lool ñi nga xam ne ñooy jàngal gone yi ci réew mi moo xam ci njàng mu diggu doomu wi walla ci njàng mu kawe mi ku ne xam na ne lépp gaare na lépp lépp lépp lépp gaare jàngalekat yaa ngi grève guddi ak bëccëg dembu barki démb ak démb ak tay defena deg na ci université étudiant yi ken fayu len sen bourse xex yu metté metté metti amna na ci université deg na am na ñu gañu am na aussi ñu ñu japp ci xalé yi fay ñu len sen bourse enseignant yi li ñuy laaj aussi manam la nga xamne gouvernement bi signé won na ak ñom waran ko def defu ko tax ñoom it na ñu grève wér-gu-yaram gi itam toll na diggante secteur santé bi ñi nga xam ne ñu ngi faj dégg naa doctor yi ci seen bopp sax eh, ñu ngi waaj a grève CNTS bu Mody Guiro ñi programme nañu ñoom it ab grève ab ab marche le 23 janvier ñaar fukki fan ak ñett ci weeru defe naa talaata la loolu yépp suñu ko seetee Euh, liñ ciy gis mooy su fekkonte ne nguur gi dañoo yor bitig di jaay dañu naan perte nañ waaw ah, jaay perte ak dawal daanu nag ku ne mën na ko loolu la wolof wax parce que bokk buñ ko seetloo lii lépp ku ne xaalis bu ñu la ameel moom ngay laaj te gouvernement bi mënu ko amul am mënta fay kon Man nañu ne euh, pertement dikkal na leen gis nañu ne euh, fonctionnaires yi ponction yi pour lu tax enseignants yi di grève à part même engagement yi nga xam ne gouvernement bi jëloon na ko te respecté wu ko bokk na ci li tax jàngalekat yi di grève li ñu leen ci solde yi salaire maam ni ñu leen war a fay gouvernement bi da cee téq lu bare bare bare bare ci kenn ku ne alors, ko que it ci gis mooy ne li ñu war a fay nit ñi amuñu ko te mënuñu ne amuñu lu ñu fayee fonctionnaire bu ko defee ñu diir ciblé yi jàngalekat yi ci euh, ñu ko am assistant lañu ci université junniy kat ci université yoo xam ne eh, kenn fayu leen ñoom it ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi grève euh, enseignement privé école yi nga xam ne eh, ay école privée lañu dañ fay fay pour jàng gouvernement bi ne dugal naa fa ay étudiants di leen war a fay di fay école yooyu pour ñoom it ñu jàngal étudiants yi. école yooyu nee nañu dañuy génne étudiants yi dàq leen parce que gouvernement bi fayu leen campagne de commercialisation gerte gi baykat yi bay nañu nawet bi nangu na ah, gars yi ñoom nee nañu am nañu gerte gu bare bare loolu gouvernement bi wax un million quatre cent mille daaw nag bañ ne amoon nañu un million am nañu leen ne amu leen sax cinq cent mille waaye nun dund ci woowu werante nee nañ ñoom am nañ un million quatre cent mille waaye gerte gi amuñu ko ko jënd chinois yee ko daa jënd euh, chinois yi daanaka gisuñu leen waa bu ñu leen gisee it néew na lool kon euh, gouvernement bi amul xaalis boo xam ne man na ko génne fexe ba euh, baykat yi seen gerte gi ñu jaay ko li ngi ci seeni loxo lam santé bi def naa xaw ma ndax wax naa ko wérgu yaram gi moom itam euh, am na ay jafe-jafe jafe-jafe yi nag loolu fokk ñu taxaw ci parce que xam nga boo taxawee fii ne képp kuy gone gu amagul juróomi at gouvernement bi gàddu na sam paj que loolu la ñu wax au moins consultation xëy na waxuñu hein? la CMU dans couverture maladie universelle ah waouh, légui, yow nga wax lolu, établissement de santé yi ci population yi ni ñëw di faju si li ñuy indi ci di ko joxe comme gouvernement bi wut ci lolu la nit di jël ñi yor ñi yor di jënd li ñuy war a mën a toppatoo gone yi di xaar nguur gi fay leen fukki weer ak ñett gi ni nguur gi fay fayut xaalis bi kon nag yow <laughs> baax ci alali jàmbur kay yomb na lool loo nit ki soo nee lii dama koy def nga def ko waaye fukki weer ak ñett gis nañu itam ne marché PUDC yi PUDC ñu ne waaw mi ngi tabax yi forage mi ngi def lii mu ngi def lee mu ngi def la lee waaye euh, entreprise yi nga xam ne ñooy liggéey fay ñu leen fay ñu leen alors entreprise yooyu bu ñu leen fay dañuy fayit bu ñu fayitee dàq seeni liggéeykat bu ko defee ñàkk gi ak ndóol gi gën a yaatu gën a xóot ci réew maanaam daal ci gàttal lii lépp ak li nu waxut day wane ne euh, réew mi daal mel na ne mi ngi jëm ci banqueroute lu tubaab bi wax banqueroute maanaam fayit ci la ñu jëm euh, fi mu ne mu ngi jéem a ñu ngi jéem a yokk euh, taxi lempo yeek taxi yeek maam ñi nga képp koo xam ne yaa ngi liggéey daal surtout ñi nga xam ne ñi ngi ci euh, jënd jaay ak importé ki mel noonu loolu taxi yi dañ ko yokk lool lool lool waaye taxi nag boo ko yokkee l'excès d'impôt tue l'impôt loolu la gaa ñi wax maanaam bu fekkente ne nit ki euh, li mu am danga cee jël lu ëpp li nga ci waroon a jël euh, moom ci boppam day mujj dee boo amee aw sëllu te saa yoo ñëwee ratt meew mépp yóbbu bu yàggee da ngay rey sëllu yi ci boppam loolu nag euh, gis nañu ne daal ci budget bi passé malgré lii ma wax lépp ñoom li ñu bëgg mooy dajale xaalis bi budget bi nee nañ budget social la dajale xaalis bi ba noppi maanaam séddale ko bu jotee ñoo xam ne ñoo leen nar a boteel surtout ci ñi gën a euh, sonn ci réew mi waaw loolu nag moo jur li ñu wax yëpp grève yeeg marche yeeg yëpp moo ko jur alors ci wàllu politique bi aussi gis nañu ne bi ñu génnee élection ba léegi Sénat ci boppam moom wax na ne moo ko bind ci rapport ne élection bi ay la yéwén bari na ay rëq-rëq lool lool lool lool noo ko doon wax ñun bu jëkk boobu élection bi weesoo ba Sénat def li muy def càmbar nee na élection bi bari trop ay rëq-rëq loolu nag waxoon nañ ko noonu ah, ak li ci mujj bon euh, li ci bees mooy dañu ne dañuy càmbar fichier électoral la noonu la ñu mas wax ay at a ngi nii loolu la ñuy wax te ko waaye nag dégg nañu ne am na ñoo xam ne indi nañu leen ci réew mi pour ñu càmbar fichier électoral bi wax nañu sax ne altine lañuy ñuy tàmbali waaye nun nag nun ba tey yëgalaguñ ñu ko nag boolewuñ wuñ ñu ci itam tey loi bi dafa wax ne parti politique yi dañu am sañ-sañ ci nemmeeku ak euh, càmbar fichier électoral kon soo woowee ay jàmbur ñu ñëw dangaa war a woo parti yom ñoom itam ñu ñëw fekkee liggéey bi bokk ci liggéey bi ah affaire boobu nag defuñu ko mbaa boog defaguñu ko xëy na dinañ ko def waaye buñ ko deful day dina indi jéye ju rëy rëy rëy euh, ci réew mi